président dafa décider que dañuy euh, reprendre le 25 yàlla dimbali nañu ginnaaw bi le 2 ñu am na ay difficultés le cinq école yëpp tijji nañu euh, téeméeri élèves yu jël juróom-ñeent fukki ak ñett ñëw nañu ci premier jour bi rek euh, téeméeri jàngalekat yoo jël juróom-ñeent fukki ñëw nañ ci premier ci bés bu njëkk bi te jàngalekat yi xam nga am na ñoo xam ne dañoo jéggal ndax dañu am ay feebar yoo xam ni donc ñoom ba Covid bi baaxul ci ci ñoom jéggal nañu leen. donc enseignants yi yëpp ñëw nañu ñu nekk gër ñu leen di gërëm ci turu ministre de l'éducation nationale muy enseignants yi di élèves yi di aussi parents d'élèves yi di acteur yëpp ndax xam nga lu ne wax nañ ko fi lu ne dégg nga ko fi way école bu ñu ubbi service suicide tout cela mais gis nañ sax ay parents d'élèves yoo xamante ni bii ci taw bi lañ jàpp seen doom yóbbu ko mu jàngi parce que xam nañu enjeu yi donc ñu leen ci félicité bi ci tegu nag am na fi ay zone yoo xam ni ñu ngi ciy wax affaire taw bi ak affaire abri abri provisoire may wax rek ni euh, gis nga souvent bu ñu bu ñu demee euh, Kolda Sédhiou Ziguinchor nga xam ne foofu day taw bu baax a baax a baax baax ay kër Kédougou Tamba aussi xam nga euh, boo boo waxee ñeenti téeméeri école mais dañ naan la juróomi école ñoo ci moom ñooy am mbënd donc loolu <laughs> terewul ay empêché wul ay cours te comme classe d' examen yi ah donc ñoom rek ñooy ñëw saw veut dire ci école yi bëri am nañ place. parce que école primaire boo xamante ni benn CM2 la ñu am ah ay classe des na fa donc loolu vraiment du nekk na loo xamante ni bi gouverneur yi préfet yi yaay IEF yi euh, taxaw nañu ak comité reprise yi pour enrayer ko euh, dispositif bi ñu teg aussi c'est la même chose pour les abris provisoires euh, classe yi nga xamante ni dafa nekkoon ci abri provisoire classe yooyu dañ koy délocaliser yóbbu ko feneen te it ministre nee na jarul sax ñuy jël ñuy force di ko yóbbu ci école fekk am nañu ay ay yeneen cent ab centre bu fa nekk ah war nañ ko fa mën a yóbbu def def cours yi kon loolu vraiment euh, def naa ne dépassé nañ ko li ñu mën a wax daal mooy ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax école bi donc fonctionné waat na évidemment euh, wax dëgg yàlla euh, parents yi xale yi kontaan nañu trop ci dellusiwaat ci ci l'école bi loolu moom ñëpp concerné concerné nañ ko li ci des nag mooy yàlla dimbali ñu rek ñu terminer ci jàmm su ko defee organiser examen yi ñi war a jàll yëpp jàll. Sénégalais boo xam ni da nga am euh, feebaru corona loolu moom du information ndax ku xëy rek mën nga koo jàpp ndax corona mi ngi kaar yi mi ngi ci marché yi te tëj ñu kaar yi tëj ñu marché yi heureusement sax CNG mooy comité lutte euh, contre euh, l'épidémie là ñoom ne bu kenn tëj école yi bu amee cas boo xamante ni bii comme à Diourbel am nañ ko xale ba cas asymptomatique la dañ jël nañ ko. traité nañ ko école ba ñu désinfecté ko donc euh, bu fa bu wéreeg jàmm incha allah li mu dina continuer euh, jàngam kon pour ñun yaa a aucun problème donc li am solo rek mooy euh, dispositif bi ñu teg mi ngi fonctionné ci wàllu thermoflage ci wàllu masque ci wàllu distanciation physique mi ngi mi ngi mi ngi fonctionné yàlla ñuy dimbali en tout cas à part cas boobu déggaatu fi buñu beneen cas te def naa ne def nañ une semaine ba lu ko ëpp kon nag sant yàlla.